أردت يوم سفرها بها سفر لخدمة المختار أفضل البشر taarix ba mooy junneek ñetti téeméer ak fukki at ak yat lim bi lee wóor su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñuy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul. audu billah bismillahi inna waliyallah xasbiyallah wa ma tawfiqiya illa billah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa mawala bokk jëri di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu delsiwaat nanu fii ci jataay bi nu baax waam ak yéen di ko ànd ak muy jataay bi ñu tuddee njàngalem Serigne Touba te mu tay bi nag mi ngi jëm ci Serigne Touba ak alquran sëriñ Tuubaa ak alxuraan lanu fas yéene waxtaane ak yéen di ko ànd ak sëriñ Seexuna Buso Cumbuleen sëriñ Seexuna Buso ñëw ak nun ci sëriñ bi bi ñëwee fan la fekkoon alxuraan ak nan la ko gattandoo ak fan la ko yóbbu ak nan la ko taxawale nu ànd ak yéen seetaan sëriñ Seexuna Buso te dellu si incha allah. su ngeen ma dégloo tey ma dal yeete ndax ñuy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyób lislaam bi ñu sunu borom tànnal subhaanahu wa taala di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ seqal jataay bi tey te sëriñ Abdul Ahad Ka ànd ak ñoom ak mbooleem ñi mu àndal ñi nga xam ne ñoo tax liggéey bi yemb di am mbégte nag ci jataay bi nga xam ne ñi ngi koy séq ngir boole ko ci ñuy waajale bis bu màgg bi ñuy séentu di bis bi ñuy sant la Sëriñ Tuubaa boromam subhaanahu wa taala waaye ngeen nit tomb bu am solo nag boo xam ne eh, mën nañoo wax ne liggéey bi li màgg màgg ngànnaay li nga xam ne moom la sëriñ bi jëfandikoo ba am ndam mooy tomb bii ngeen tànn muy alxuraan te loolu ci làmmiñu boppam it la bàyyi ko waaye fekkit euh, mu jëf def ci jaloore jëflanteeg alxuraan jëflante boo xam ne àdduna bépp teg nañ ko bët kon ñi ngi sant suñu boroom ci tomb boobu ngeen tànn waaye di leen ndokkeel ci bis bu màgg boobu ñuy séntu tey ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm liñ ci yéene lépp suñu borom defal ñu taw feex ñu mën koo mottali dañu tase ci ngërëmu sëriñ bi noonu nga ko waxee nag diggante sëriñ Touba ak alxuraan ku ne xam na ne alxuraan moom day alali jullit yoo xam ne suñu subhaanahu wa taala ko wàcce jox ko sayyidina jibril alayhi salaatu wassalaam mu indil ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ko saxaaba yi saxaaba yi jàngal ko taabi'una yi taabi'una yi jàngal ko taabi'u taabi'ina yi loolu di jokkaloo ba agsi ci jamono ji ñu toll Cheikhul Xadim nag radiyallahu anhu bi muy dikk jamono fekk na fi alquran fekk na réew mi di Sénégal alquran ndax ku ne xam na ne Sénégal eh, histoire dugub lislaam ci biir réew mi mooy histoire duggug alxuraan ci biir réew mi ñoo fi duggandoo bi fi alxuraan ak seen ak jamono bu yàgg la sunu mag ñi sunu maam yam fi fekkoon bi ñu duggee ci lislaam dañoo daldi taxaw taxawaay bu mat sëkk nag ci alxuraan ngir gis giñ gis diine lislaam maandu gi ci nekk ak jëflante bu rafet bi ci nekk loola daldi sabab seeni xol ñu mel ne ñu màndi ci sopp yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daal dinay sabab nag ñu doon def ay effort ci mokkal alquran ak di ko jéem a tisaare seen seen kem kàttan eh, nga xam ne taxawaay yi ci doon taxaw day mel ne jamono boobu dëkk boo gis ci biir réew mi ci biir Sénégal taxawal nañ fa ay daara ngir jàngal xale yi téereb sunu borom bi subhaanahu wa taala ngir boole leen ci ndab yi nga xam ne sunu borom daf leen di wattoo téereem bi jëfandikoo nag ay jumtukaay yu baree bari ndax ku ne xam na ne bu ñu nee daaray alquran xel yi dana dem ci euh, alliwo yi ñuy jëfandikoo xel yi dana dem ci xalima bant yi ñuy yàtt di ko jëfandikoo ay xalima xel yi dana dem ci baraag yi ñu daan dëkke wala néegi ñax yi ñu daan dëkke ak yu demee noonu loolu nag demoon na ba sunu mag ñi bëgg giñ bëggoon diine bëgg giñ bëggoon alxuraan tax na ba dëkk boo xamoon ci senegal rek daanaka amoon na taalu jàng boo xam ne ñu dëkkee ci dëkk ba danañ seex ba seenu njaboot di fa daje ngir ñu jàngal leen téereb yàlla boo yi ci biir loolu nag mag ñi daanañ jëfandikoo lu ne ndax jamono boobu suñ daara bi nga xam ne moo samp di jàngale daf daan yore ay tool donga yi di ànd ak moom di ne ci tool yi bu tool yi jeexee it beneen liggéey bu mu mën a doon dong yi dañ koy ànd ak moom su ko defee nag taxaw gi ñu koy taxawu ci liggéey yi moom mooy féetewoo mbirum kër gi lépp lu ci war njàngale mi moo koy taxawu yar bi moo koy taxawu waaye euh, problème social yi am ci biir dëkk bi it jàngalekatu alxuraan bi mooy taxaw ci loolu naka noonu it euh, li nga xam ne imaam moo koy taxawee loolu daf daan delluwaat ci sëriñu daara bi nga xam ne buñ dee tudd doom yi jàngalekatu alxuraan bi la ñuy woo buñ dee jullee ñi faatu moom la ñuy woo buñ dee miraas moom la ñuy woo nga xam ne mbooleem xeeti responsabilité yi nga xam ne diine daf koy teg ci loosu ab jullit jamono boobu jàngalekat alxuraan yi ñoo gàdd woon responsabilité yooyu taxaw ci taxawaay yu mat sëkk naka noonu it doon nañ fent maanaam doon nañ créer ay jumtukaay yoo xam ne daan nañ ko dimbandikoo ci njàngale mi ngir gone yi mën a mokkal loola moo sabab xam nga ci jamono yonente bi alayhi salaatu daanañ bind ci ay der ak ay xobi garab waaye nag ci jamono sun sun mag ñi fii ci suñu réew mi miin nañ ñu fab garab yi di ko yat di ci liggéey ay alliwo fab banti xalima yi banti yi di ko yat di ci liggéey eh, ay xalima ngir di ci mën a bindee dem ci cin yi di jeexit yi nga xam ne mi ngi koy gis ci cin yi muy ñuulaay boobu ñu di ko xoos di ci liggéey daa joo xam ne danañ ci mën a bind alxuraan loolu ci jumtukaay yi ñu doon jëfandikoo la ngir mën koo mokkal ndax booba ku ne xam na ni nii mbir yi jàppande léegi jàppandee wutoon noonu noonu ñu doon jëfandikoo jumtukaay yooyu yi nga xam ne eh, yuñ mën a làmb daj ko la man koo teg bët noonu lañ doon jëfandikoo yi i jumtukaay yoo xam ne du ñu mën a làmb daj ko waaye eh, yu ñuy tudd lay doon nga xam ne eh, daanañ jëfandikoo li ñu tuddee maxaarijul xuruuf ak li ñu tuddee ilmu rasm nga xam ne jamono booba yaatoogul fii ñoom daanañ jëfandikoo seeni si seenu xereñ ci ay jumtukaay yoo xam ne ngir jegeel xale yi jàng ba duñ jaawale xaraf yi waaye duñ jaawale it mbindiinum alquran loolu moo indi woon boole ak yu demee noonu yooyu xam naa du ma ci sori duma ma ci guddal waaye boole bi boo gisee mag ñi daanañ ci indi yu yaatoo yaatoo yaato yaato yaatoo am na ay benn benn rek yuñ ci mën a joxe misaal yoo xam ne day wane ni euh, ilmu rasm ak maxaarijul xuruf ay aji ci yooyu lim doon jafe-jafe ci jamono boobu ñoom ñu ngi doon góorgóorlu ndax boo xoolee alxuraan dafa indi wal mutafikaatu wal mutafikaati wal mu mu ñett ci alxuraan yoo xam ne kiy jàng bu teeluwul mën naa indi lënt ci moom ba mën na koy jaawale jamono muy jàng waaye mag ñi daana ci indi ay boole yoo xam ne eh, daanañ wax ne wal mutafi yat nga mu ne nañu ko daan tënke wal tafi yat kaatu biraan kaati xàqatu kata bank bàjjoon naj bi nga xam ne soo mokkalee boole boobu boo agsee ci biraan te lañ daan tudde noonu da nga mën a indi wal mu da nga mën a indi da mën a indi wal mutafikaatu ali imran boo ñëwee ci wal mutafikaati nga xam ne alxàqatoo moom boo ñëwee ci wal mutafikata nga xam ne euh, suratu naj mi moo ko moom loolu daanañ ko def ay boole daanañ wax it bala ngaa galgal njëkkeel taara yat laacinuuna laacinuuna laan laacibiina lan biyaa i laata bàjjom naj mi yalcanuhum laacinuun laacibiin laata bàjjom naj mi ñett yooyu daanañ ko daanañ ko daanañ ci joxe misaal nga xam ne bala ngaa galgal njëkkeel taara yat nga xam ne da def ëllif def laam indi geneen laam galgal nee na loolu ñett la ci alquran yooyu daanañ ci joxe misaal daanañ waxit ñett ku leen boole guddee mbaa nga fanaan àll muy aaya yi nga xam ne ñoo tàmbalee walwaa ku leen boole guddee mbaa nga fanaan àll loolu dañoo soree fi ñu nekk ci alxuraan bi daa nekk ci njëlbeen bi kii ne ci digg bi kii ne ci mujj bi muy wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna ak wal wasnu yawma isinil xaqu ak wa shafi wal watri daanañ ko daanañ ci joxe noonu misaal loolu nag ay ay ay ay jumtukaay la yu am solo yoo xam ne tax na ba mu mokkal gu njëkk googee nag daanañ peege alxuraan peegin woo xam ne mag ñi sax am nañu àggoon ci bu dee fu mel ne ci la daramaan àggoon nañ ci niñ koy mokkale tàmbalee baqara ba minal jinati wanaasi noonu lañ ko mën a tareewaat tàmbalee minal jinati wanaasi ba àggat baqara loolu lépp yittewu gi ñu yittewoon alxuraan moo leen yóbbuwoon ci loolu waaye nag demoon na ñin nag ba am ay gàllankoor ci tàbbi nag muy jekku googu ñu ko jekku nag dem ba yóbbe leen nag ñu tàbbal ci lu ci bokkul indi mbindum jalgate yàq di am ñi nga xam ne dañuy tari ci seenu mokkal ñu dem ba yenn baat yi ñu di ci wax loo xam ne wuute nag na ko suñu borom jàngalee yàq di ci am ñi ko mokkali dem ba yëg seen bopp di ci laawaan di ci di ci di ci wane seen daraja euh, dem ba timit nag ak yàq tàmbali cee tàbbi loolu lépp nag amoon na waaye loolu lépp nag sëriñ bi moom bi mu dikkee ci jamono euh, damay tënk rek ngir waxtu wi ndax lu ci nekk mën na sonna cee yaatal lool waaye sëriñ bi bi mu dikkee moom dafa wax ne noonu mu fekkee woon jamono kat Euh, ñu jàppe ni alxuraan dafa sant lool ñooñee ndax xam nga ñi ci daan laawaan euh, ndax alxuraan boobu ku ko mokkal danañ la jox manzila boo xam ne ci biir société bi loo xeebu xeebu woon njëkkës ngay mokkal alxuraan ginnaaw bi nga mokkalee danañ la ko jox famille boo mën a bokkit lépp lu la jafe woon ci ñoom dana la yomb muy soxnaak yu aju ci yooya euh, tax na ba nag ñi ko mokkal daanañ ci doxe nu ne war ma jiñ ko war a jox nag mu mujjoon na mu des ndax dem nañ ba def ko puukarewu sëriñ bi nag bi mu dikkee ñooñu mu fekkoon ñu ne ca eh, te nekkoon ca ci anam goo xam ne àq ji des na daf leen a sant lool wax ne moom daal mu ngi mel ne ku aw naaru góoram rëcc mu di ko wër nag fekk naaru góor yi dem na ba fekk ay waxambaane yu toog di togg warga daal di koy jàpp wudd ko ci barab di ko xontu wala sax xontuñ ko joxuñ ko mu naan waaye téye nañ ko ba boroom ñëw ñu jox ko ko lum loof loof wala lum fëndooñ fëndooñ du tee boroom daf leen di sant ci téyel gi ko téyel naaru góoram woowu ba mu jot ci waaye du leen sikk ca loofaay bi ak fandooñaay bi ndax boo ko bàyyoon mu dem bu dikkee du ko fekk kon sëriñ bi moom daa sant ñi nga xam ne ñoo téye woon alxuraan ba mu dikk ak lu ca mënoon a xew rek moom sant na leen gërëm na leen waaye bi mu dikkee nag yàlla dogal moom it mu feeñ ci famille boo xam ne famille bu xam ci jaamu yàlla lañ famille buñ xam lañ ci ak maandu famille buñ xam lañ ci jàng jàngale sëriñ bi daal di teel a mokkal alxuraan moom ci jëmmi boppam ci ci loxoy waajuram sëriñ Mamour Anta Sali ak nijaayam sëriñ bu soobe ak nijaayi sëriñ bu soobe ci boppam di tafsir Mbàkke Ndumbe diggante bu gàtt nag ci la sëriñ bi mokkal alxuraan ci seeni loxo kon bu ne sëriñ Tuubaa ak alxuraan mooy moom bi mu ñëwee rek ci teel a mokkal alxuraan moom mokkal goo xam ne na ca mag ñi defee woon yitte ci mokkal ko ndax bi may wax léegi maa ngi bàyyi beq yooyu nga xam ne daan nañ ko beqi la gone gi bu mokkalee ñu bindiloo ko kaymil bi alxuraan ngir wane ni kii kat mokkal na yooyu yëpp daan am sëriñ bi bi mu ñëwee mokkal alxuraan yooyu yëpp da cee jaar beq bind ay kaymil yu bari ci loxol boppam kaymil yu baree bari ci loxol boppam bi mu demee nag ba nga xam ne sëriñ Mamour Anta Sali mi waajur mi ngi Mbàkke Kajoor di jàngale sëriñ bi nekk na ci wetam di ko jàngaleel alxuraan nam koy defee ak di ko jàngaleel xam kon moom jaar na ginnaaw bi mokkale alxuraan jàngale na ko jàngale na xam-xam waaye ginnaaw bi waajuram moo wi di sëriñ Maam Mor Anta Sali làqoo nag tam jot ndigal ci boromam subhaanahu wa taala ci boole yar ci njàngale mi ba tax mu waxoon wax joojee ne euh, man kaana xat sahibana li taallumi fal yanzur li nafsihi wal yadhab haysu shaa koo xam ne jàng kese kese kese moo la fi tax a ñëw seetal feneen foo ko mën a defee waaye nag wa man araada ma aradna fal yasir bi sayrina wala yaqum bi amrina li ma bëgg nag li ma namm ku ko namm na dox topp ci man te taxaw ci samay ngir taxaw ci samay ndigal bu waxee loolu nag mbooloo mu bari dañoo daal di dem ñu bari nag dañ naan daara ji dafa tas waaye tësut sëriñ bi tësut daara ji sëriñ bi tësu ko daara ji tësut ñu bari dem nañ ñu néew des fi ànd ak moom ñoo ñoo fa des ànd ak moom nag ci la sëriñ bi formé murid yu njëkk yi daal di soppi fonction bi mu amee woon te mi ngi ko jëmee jëme ci jàngale ci wàllu pratique waaye sóob nit ñi ci tarbiya ngir yar leen maanaam jàngale ci wàllu tewri laa bëgg a wax waaye sóob nit ñi ci ñu jëfe leen jàng muy wàllu pratique bi nga xam ne dafa boole ñaar yëpp loolu nag bokk na ci li nga xam ne biñ gisee ne sëriñ bi na mag ñi xére woon ci alxuraan ci mokkal ko bind ko di ko jàngale ak di jëfe ay atteem sëriñ bi loolu dafa fees dell ci moom bi loolu lépp amee nag ñu gis relation bi nga xam ne ruuxuk boppam am na ko ak alxuraan ndax moom nekkee na ca na ca nit ñi nekkoon ngir mu tisaaroo waaye dafa am beneen relation bu dox digganteem ak alxuraan boo xam ne ruuxam la ak alxuraan loolu nag feeñ na ci ay barab yu baree bari waaye am na ci diggante yoo xam ne sëriñ bi moo ko waxal boppam mu daal di jàpp nag alxuraan jàppin woo xam ne daal di koy considéré ne lépp lu baax rek ci téere bii la war a bàyyi ko loolu am na barab boo xam ne dafa wax ne uaahidullaha ala axsil kitaab bi xidmatin lil Mustafa baabi sawaab maa ngi wëlëranteeg yàlla ci téye alxuraan di ko liggéeyal di liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy buntum ju daal di waxaat ne zahara li ana atisaaman bi kitaab wa bi hadisil Mustafa huwa sawaab leer na naññ fi man ne téye alxuraan ak yonent bi ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dëgg-dëgg njub ci beneen barab mu waxaat ne ilallahi bil qur'ani wa sunnati allati xadat nii saraftul kulla wal qalbu wal qalbu xaashi'un soppi naa sama lépp jëme ko ci alquran ak sunna te yooyu tamit gindi nañ ma te defal nañ ma ak ragal ak ak toroxlu ci sama xol waaye waxaat na ci beneen barab ne saarifan himmati li rabbi taala raajiyan saqiyahu bi maa in maini soppi naa sama yitte yëpp jëme ko ci yàlla di yaakaar nag sunu borom màndal ma ca ndoxam mu neex ma waaye nag maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil xaaidil basiril muini ma jàpp alquran jàpp gu mel ni silmaxa bu tëye ci loxol njàccaar wax na nag alxuraan moom duma ko wuutal ak wot duma ko remplacer dara dara dara ci kaw suuf ndax ci lay wommat ñi may wommat jëme leen ci borom mbindeef yi te mooy yàlla quraanu rabbiya laa abxi bihi badalan bihi aquudu ila rabbil waral alama nee nañ mboolem ñi may wommat jëme leen ci jëme leen ci yàlla ci alxuraan laa leen di wommati wax na it mooy àndandoom moom téeréb yàlla boobu rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabuhu fi lbaxri hiina aduuru maanaam bi mu nekkee ci tukki géej ji àndandoo yi la amee alquran mooy ka ci jiitu rafiqi kitaabullahi la wax yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci ay àndandoom waaye saxaabatu rasul bokk nañ ci ay àndandoom nga xam ne kon diiru li nekk ci géej gi am na ay àndandoo waaye alquran rek la mooy ka ci jiitu ak ñooñu mu tudd waxaat ne alquran mooy sama trésor mooy sama daraja te it képp koo xam ne maanaam d'accord na ak alquran rek sunu borom dal di koy gindi ko kitaabuka lii kanzun wa jaahun wa rifaatun da man yurda bil qur'ani mawlaahu yahtadi loolu lim ci indi ci ay abyaat euh, mënee su koo dajal ci jataay bu mel ni bii ñu seq tey waaye dañ leen indi tuuti ci nim jàppanteeg moom loolu digganteem ak moom la waaye mag ñi nga xam ne nag ñoom la nekkaloon daf leen na narganoon ci loolu ci bëgg alxuraan ak fonk ko ak di ci liggéeyloo loolu tax na jamono bu nekk mu daan joxe mu daan wane ay kaawteef ci alxuraan yoo xam ne ku dul moom gis miinaguñ ko ci moom bokk na ca am na ca boo xam ne bii ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Ndumbe Silla ak yi <coughs> moom mooy nettali nettali boo xam ne dafa wax ne karamatum zaharat bi hadrati maanaam kiimaan goo xam ne ci sama teewaay la feeñe booba sëriñ baa ngi jolof nee na rahmaan lañ julli fajar ba noppi mu daal di joxe ndigal ci ne nañ na na bu ñu jàngee kaamil bi ñu jàng fa man nañ ko fekk daaru xuddus ñu noppi fekk ko fa mu joxe ndigal ci ne nañ tëj kër gi bu kenn dugg te ñu ne ci biir it bu kenn génn daal di dugg ci biir génn nag ab cornet boo xam ne am na lu ca nekk lu nuru warga mu ne na ngeen ko togg jëfandikoo ko te kenn ku nekk ci yéen bu ko jëfandikoo na fas ci ab xolam sunu bono defal ko ab dënnam mu nekk ndabal alxuraan nee na ñu daal di jëfandikoo loolu biñ toogee ab rek am ku ñëw fëgg bunt bi nee na kenn ci ñu ñëw taxaw ci bunt bi daal di xool ci xar yi gis jëmm joo xam ne mi ngi mel ne mbërum làmb takk ay pettaaw ak i bandal ak ay teqal ma nee na kookee daal di koy laaj ne ko loola tax a jóg mu ne ko sama yitte du yow waaye sëriñ bee ma tax a jóg nee na sëriñ bi daal di dégg kàddu gi daal di génne fa mu nekk ñëw taxaw ne ne fere wow dandul mu dandu ab diir sëriñ bi jàkkaarloog moom ba yàgg mu daal di ne na ngeen ko yóbbu ba mu sori te bu leen ko fitnaal bu leen ko bu leen xotti it war maam ñu daal di ubbi yóbbu ko ba mu sori biñ dellusee nag mu daal di ne leen ndax xam ngeen koo kii ku ne ko déedéet mbàkke mu ne kooku mooy aduwullahi iblis sunu borom nag xamaloon na ma ni dana ñëw ci dana ñëw tey ci kaw suuf waaye bu ma fekkutoon dana fi indi yàq goo xam ne kenn du ko mën a defarati ñu gis ne keroog bi mu jotee information boobu ci ne iblis war naa ñëw ci kaw suuf indi fi yàq gu kenn mënta defar gis nañ ne la feeñ ci lu mu defloo donga yi mooy jàng alquran ngir loolu mën a détecté tawat boobu bi mu indoon mooy iblis loolu nag lenn la ci yi nga xam ne daana ko wane ci diggam ak alquran taxoon na it mu sàkkal ko ay kuréel yoo xam ne loolu rek mooy mooy seenub liggéey buñ buñ buñ jullee fajar na jàng ñaari kaamil alxuraan buñ jullee tusbaar jàng ñaari jàng benn kaamil buñ jullee takkusaan jàng benn kaamil buñ guddik ajjuma ñu jàng juróom-ñaari kaamil nga xam ne boo ko xoolee kon day mel ne waxtu juróom yi la taxawoon temm ci waxtu wu ci nekk nañ ko gunge kaamil alxuraan te noonu mu amee ñu ko doon bindal ñu ñu ko doon jàngal kaamil yi noonu la amee ñu ko doon bindal amoon ay bindikat yoo xam ne rek mooy seen métier wax nañ ni it lépp lu mas di liggéeylu lu mu àndal boppam moom ak ña koy liggéey ñëpp ñu mokkal alxuraan la ñuy doon ñoo xam ne dañuy boole liggéey bi ak jàng alxuraan. wax nañ ni néeg yi mu daan teglu ci Jurbel néegi juróom-benn koñ yooyu mu daan sampalu wax nañ ni ñi ko daan yanu ay kaang lay doon yoo xam ne bu kenn ku nekk yanoo benn koñ ba ñëkkati ko taxaw bala ñu ko teg ci xer yi kenn ku nekk da ngay tari fukki isib kaamil daan nañu doo ko caa teg loolu ak jagle ak jagle la goo xam ne am na digganteemam ak alxuraan naka noonu it foofu mu nekkoon ci njëriñ Cheikh Mouhamadou Bachir nee na suñu masaan xëy kër gi li muy rëy rëy danañ fekk biir ëtt bi ëttu kër gi fenn fi ci nag mu teg fa tànkam bu sell boobu ngir jàng fa alxuraan këru njëriñ gi amoon na lu toll ci juróom fukki néeg néeg bu nekk mbaara dox digganteem ak moroomam waaye néeg boo ci dugg wala mbaar moo ci dugg danga fekk mu duy ko ma fees dell kaamili alxuraan te it di fa parfum ya gën a seer di ko sotti ci seen kaw di wax ba bayitam yu am solo yooyu yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa xabli kunta tabibi wax na ni sëriñ Mamoor Jaara mas na ko faa seet si boo xam ne da koo dalal ci mbaar booba néeg bari nañ lool waaye bi mu ñëwee fekk si ko dana ko nag fii ma a dalal mooy sama barab li barab yi di yaatu yaatu nag dama ko waajal rek ngir alxuraan nga xam ne kon néeg yi alxuraan ko moom mbaari yi alxuraan moom ak li kër gi di rëy rëy rëy ñu di ko bindal boole ko muy jënd ay moolit nag jamono bu nekk ndax wax na ne am na bis boo xam ne lu war a mat juróomi téeméeri mooli kaamil alxuraan jëndandoo nañ ko ci benn naar indil ko sëriñ bi ci kër gi te booba fu waay bind kaamil indil ko ko ngir gis nañ euh, li nga xam ne sunu borom defal na ko ko ci ak bëgg alxuraan ak fonk gum ko fonk ak li ko alxuraan jaral ba tax na naari Mauritanie ci seen bopp nañ ci wax wax yu ama am solo nga xam ne daa daanañ ñëw di ko jot ci alxuraan jooji wax nañu am na bis boo xam dafa tëju am naar yu ñëw toog ci bunt bi daldi toog ba yàgg ñu daldi jekki-jekki rek daldi wax ci alquran inna haulaai yuhibuuna al aajila sëriñ bi daldi ne tëll génn daldi ne man kaana yuridu al aajila taajjalna lahu fi dunya wal axira naar yi daldi jàngaat lan tanaalu al birra xatta tunfiqu mimma tuhibuun sëriñ bi daldi ni cas kaamil bi alquran ni leen ko jàpp booba ñoom leneen leen a taxoon a jug waaye nag fañ ko jaar daa bokkut ak fañ war a mën a jaar ba tax ñu jot loolu ñu war a jot te mooy euh, koppar yi nga xam ne moo leen moom mooy mooy seen yitte weeru weeru baraxlu dañoo toll ci ñaar fan ak juróom-benn daal di woote daal di ne tey ñaata fan ñu ne ko ñaar fan ak juróom-benn mu génnee këyit ak daa jox njaboot gi ne leen bëgguma ñu ne ma weeru koor waa ngi nii teru na te néewuñ ma kaamilu alxuraan baa ngi nii mag ñi daal di koy séddoo kenn ku nekk jël lam jàpp ne mën na koo defar toppatoo ko ñi isib ñii ñaari isib kenn ku nekk la mën a defar ci bis mu jël ko ñu daal di yëgoo bañ tisaaroo kenn ku nekk bind na mbar a bind bi noppee ñu dajalewaat ko euh, mu doon kaamil bu mat sëkk boo xam ne joxoñ yi sax dafa tolloo biñ ko indilee sëriñ bi nag mu laaj leen ni leen ndax mas ngeen a dégg ñu ne ko déedéet loolu nag di ak jagleem goo xam ne digganteem ak alxuraan la amee woon loolu moo tax naaru Mauritanie bi ñuy wax Ahmad Mahmoud bun Sayid al alxasani doon na ci wax lu am solo ngir wane ni Sëriñ Tuubaa mel ak alxuraan ak ni ko fonke ak ni mu fonke kook alxuraan daa gi ci di wax ne ma in ubali ida ma na su zulmaali anni bi ujrati xatti musxafi alxaali musxafi alxaali nee na man de bu nit nayee ci alalam ngir bañ ma koo jox duma ko faale li fekk Ahmadou baa ngi fi te li ko kaamilub alxuraan jaral di ko ko jaral li fekk Sëriñ Tuubaa ngi ci kaw suuf li ko kaamilub alxuraan jaral di ko ko jaral keneen koo yor alal te nay ci man sa alal jooju faaliwu ma ko daal di waxaat ni maadaama xaydul wara xayyan yubajjiluhu xaqan wa yabsulu fihi xaaliyal maali li fekk xet la xettalaa ko nu mbindeef yooyu mi ngi fi di dundal alxuraan di ko màggal di ko jox àqam di fab alal ju cher di ko ci def ku yor sa alal téye ko lu fekk Ahmadou Bamba ngi fi rek soxlu ma sa alal fii kulli yawmin tuwaafi alaafu manzilahu tutla bi amsaaliha min baadi amsaali nga xam ne jamono bu nekk nit ñi ay junni junni ñooy ñëw di jàng alxuraan ci këram eh, kenn ku ci nekk ak cër ba nga xam ne moom la ko Serigne Touba di jox mësta tëju nag ku yor kaamilub alxuraan kon nag jàpp naa ni ni ñu waxtu wi ni ñu waxtu wi tënke nga xam ne ay minutes yu la ñu bëgg a wax yu bëgg a wax nga xam ne li ñuy wax lu tuuti la ci lu bari nga xam ne lañ ca yéene woon a leeral mënuñ ko caa leeral nga xataay waxtu wi ku mel noonu diggam ak alxuraan dem ba àgg ci wax ne mankat bi ma suñ borom booleeg noon yi ñu yor seeni i jumtukaay yor seeni i xeej seen i jeesi seen i fetal seen kënu pexe mu nekk ñu jëmi ko ci man kënu bi ma yoroon nga xam ne moo doon euh, moo ma doon aar di nasaxal seen i noon alxuraanul karim la wa madaafi'i llaati biha anfi wa biha yufaariquni anidun qaasidu zikrun xakimun uxkimat ayatuhu mimman yuzahzihu ma yuridul marid kon day mel ne diggam ak alquran alquran moo moo ci la Serigne Touba amee ndam lii mu am moom la jëfandikoo ba ba may yi mu am mu am ko boo demee ci ay tawaalifam da nga fekk ay xuraaniyaat yoo xam ne li ñuy tuddee euh, tatris la cay def nga xam ne fa benn benn benn benn benn benn aayab alquran xaraf fu nekk mu bind ci aw bayit ba xasida gi ak loolu boo dee xool day mel ne manees naa wax ne kaamil bi alxuraan bépp daanaka def na ko ko waaye nag aaya bu muy jël bu nekk day xool contexte bi ñu ko fekk jour bu ko fekkee ci ay jafe-jafe mu seet aaya boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo na ko ci jamono bu mel noonu daal di ci liggéey xasida ak alxuraan loolu sax feeñ na ci tukkib géej gi ci yo bi lu woon ak moom it fi ci liggéeyee xasidaam googu dañu wax contexte yi méngoo nañ waaye inna waliyallah boobu moom it jamono la ko tax a jug ak ni mu ko jële def ko mu nekk wérdam méngoo naak barab boobu bi nga xam ne moom la ko doon jëfandikoo loolu nag liggéey na ci liggéey yu am solo yoo xam ne képp koo xam ne koo kii moo la jaboote sa digg ak alxuraan war nga cee taxaw taxawaay bu ama am solo rawatina nag mu jox ndigal képp ku am murit te mooy képp kum jaboote ne képp koo xam ne am murit nga boo xam ne mën nga yaakaar na fexe ba saxal jàng alxuraan bis bu yàlla sàkk kullu muridin bii yelusu fal yu dim tilawatan li xayri dikrin qadru sim téere bi nga xam ne mooy ngeen ji téere bu dee fi bind te muy alxuraanul karim bépp murit boo xam ne mu ngi wéeru ci man na ko saxal di ko jàng bis bu set kon koo xam ne kii sàggane nga ko nag yaa ngi nasaxal wala yaa ngi woyofal ndigalu Serigne Touba koo xam ne it nag fonk nga ko yaa ngi jàppale Serigne Touba ci ak bëggam yaa ngi koy fonkale loo xam ne yàlla la digal nga fonk ko waaye nag yaa ngi ciy fekk si waat Serigne Touba mi nga xam ne moom mooy yaakaar adduna ak alaxira kon dañuy ñaan rek sunu borom mi dara teewul subhanahu wa mu dëpp ñu kàttan ba li nga xam ne mooy ak bëggam ci ñun jamono ndax ñuy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul jërë ngeen jëf mbokk yi kon loolu mooy jotaay bi nga xam ne moom lañu àndoon ak yéen jële ko ci sëriñ bu Buso mu indiloon nu ko ci diggante sëriñ tubaa ak alxuraan wax leen njëkk muy ñëw fim ko fekkoon ak bi mu ñëwee nan la ko dunde ak nan la ko dundale ak nan la wootee jëme ci ak nan la digale jullit yi rawatine képp kuy tuddoo taalibe aju ci moom digal na la nga di ko jàng guddi ak bëccëg digal na it képp ko aju ci moom ngay jàng alxuraan kullu muridim bi yu yaluuzu fal yudim tilawatan bi xayri zikrin xadd sim kon digal na mboolem ku jullit rawatina ku di murit ngay jàng téere bi te di ko settantal waaye itam di ko dund kon yaakaar naa ne li ci matoon na wax lépp sëriñ soxna bu so wax na leen ko kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey ci diggante Serigne Touba ak alxuraan mu di yóbbal ñeel képp koo xam ne yaa ngi waaj màggal gi te weeru safar di doon weer woo xam ne weeru nafar la nafar yàlla ak yonent bi nafar sëriñ bi nafar téereem bi nafar jikko yi nga xam ne moom lañu sëriñ bi indiloon kon lii bon kon lii bokk ci tomb yi nga xam ne moom lañ jëloon war koo jël ab yóbbal ngir waajale ko màggaluk tubaa jël jël tomb bi jàpp ko itam nag teeku bu dëgër man cee defar sunu dunduk àdduna àgguk alaaxira jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu أردت فسكرها بها سفر لخدمة المختار أفضل البشر تاريخ بما يجنا كي يتسامر أفكار دال يقسم بليور سنين ما دبلو تاي ما دال ياتي ndax ñuy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul